am këru diine yi euh, ñu ngi doxal suñuy diggante ak ñoom ci jafe ci kaw jafe-jafe yu bari nag wax moom bu jotee rek dañuy wax dëgg li mooy nit ñi dañoo dem ci këru diine yu bari wax fa lu leen neex waa ji terroriste la waa ji salafiste la waa ji diine tarixa yi lay bañ waa ji lii waa ji laa def ko sax ci jàngu bi fu ne ñu dem fa wax mu am nag ci kilifa diine ñu jàpp loolu te boobu jamono tooguñoo ak man ñu ma sax chance fu mu waxee xamuñu ma miinuñu ma ànd ak loolu yëpp ñun ñu continuer nekk fa ñu nekk parce que gis nga dafa am yoo xam ne ku ko mës a yëkkati ci àdduna rek sosal nañ la fenal nañ la boole nañ la ak nit ñi loolu moom ci taarix ñëpp xam nañ ko waaye dëgg mooy mujj ci lépp ñu continuer dox li ñuy dox ba jamono ji am nañ jafe-jafe yu bari ndax defe naa ki gën a am jafe-jafe léeg pour toog ak yenn kilifa diine yi man mii la ci Ousmane Sonko léeg-léeg sax mu war a seeti kilifa diine dañuy organiser organiser pour saboté pour rek ma bañ a gisee kilifa diine gi façon organisation bu ne te dara du kenn nag ku dul nguur gi ak ñi ñuy fay ñu nekk ci biir këru diine yenn saay ñi ay bëkk néeg lañu ñi ay euh, ak yu mel noonu waaye loolu damay jàpp ni per sa temps la. parce que ñun dañoo gëm ni dañoo nekk ci dëgg leneen suñu dënn li ñu yéene ci ak ci réew mi yàlla xam na ko man saa su ma jullee ma naan yàlla su dee lii ma ñi ñu sumb ni nekk ci bu dee am na lenn loo xam ne suñuy mbiru bopp la walla lu jariñu réew mi maa ngi ñaan nga soreel ma ko ma xëy rek nga fëgg sama bopp sa politique génn sama bopp ma nekk ci leneen moo tax dañ naan yàgg-yàgg dëgg mujj te dëgg gi commencé nag di feeñ ndax kilifa diine yu bari yoo xam ne demoon nañu wax leen ak yu dem ba ñenn ñi am lu jàpp tey jii surtout ak li mujjee am yépp dem nañu ba gis ni ndekete lu bëri li ñu leen wax ci son ko amul parti bi ma bokk ñëpp a ngi ci parce que Sénégal la foog nañ ni ñi génnoon les milliers et milliers de personne pour ne pas dire de personnes yi génnoon di manifester foog nañ ni ñooñu ci ci ci ci weer wi lañ jóge daanu suuf wala ay tchadien lañu wala ay japonais lañu ay sénégalais lañu di dëkk dëkk Sénégal bokk ci xeet wu ne bokk ci tarixa bu ne bokk ci diine gu ne bokk ci région bu ne kon nit ñi dañu delloo seen xel kilifa diine yi nag mooy chance su Sénégal chance bu rëy la am te lii wanewaat na ko waaye ñun dañu bëgg dañuy ñaan yàlla. système boo xam ne du ñu toog ba réew mi tàkk ba noppi kilifa di nii nay doog a intervenir parce que am na loo xam ne suñ ko taxee woon peut-être bu njëkk ba sax du ñu si fii moo taxoon suñu programme 2019 ñu degoon jugaloon ci ni dañu war a institutionnaliser rapport yi diggante bi entre diine gi ak nguur gi dañ ko war a dañ ko war a institutionnaliser mooy fexe ba am benn couleur boo xam ne benn majalis boo xam ne euh, euh, benn majalis boo xam ne kilifa diine yi seeni ndaw ñoo fay toog conseil économique social bi lu muy jëriñ Sénégal dara HCCT lu muy jëriñ Sénégal dara mun nañu am benn assemblée monocaméral bu am doole ñu changer ni ñuy falee député yi di député doon koo koo xam ne day am gëdd am personnalité xam ni askan wi la fi toogal bu loolu weesoo ñu am benn benn benn assemblée boo xam ne ndawu kilifa diine ak kilifa aada yi ñoo fay nekk. bu dara amee ci réew mi masalan bu ñu nee gis nañu pétrole ci réew mi ñu defar documents yi teg seen loxo ñu ci war a def ci olofal wala ci arabe français ku nekk li mu dégg ñu jox la ñoom bu ñu xoolee dem ci fañ bokk waxtaan ak ñoom ñu ne ah am nañu pétrole de pétrole bi mi ngi à cent kilomètres ci suñu côte yi nee nañ quantité bi nii la toll nangam nangam ñoom it ñu bind ne ñun suñu xalaat lii la ci xalaat boobu tënkul nguur gi du avis avis la tënk nguur gi mais nguur gi mun na ne ah. lii de gis naa ci ay xalaat yu rafet yoo xam suñ ko booleek li ñu am ni ñuy ni ñuy saytoo suñu suñu alal dina baax waaye bi ñu defee lool suñu programme am na ñu demaat ci kër diine yi ne leen kii daf leen contre kii dafa bëgg a tënk kilifa diine yi ba liñ daan def ci yeneen anam dootuñu ko mun def kon suñu chance ñun te mu màgg ci réew yu bëree bari bari damay damay ragal sax ni def dafa mel ni Sénégal rek la am ci forme bi mu amee mooy ñu am ay kilifa diine. kilifa diine yooyu nag ñun ñoo leen war a gën a dooleel ñun suñu bopp gën leen jëmmal ba nga xam ne rôle bi ñu war a jouer muy rôle régulation sociale rôle régulation sociale régulation sociale nag dafay commencer ci anticipation day commencer ci suñu gisee ni lii fu mu ñu jëmee musiba la ñu teel a fagaru balaa ëllëg ñu war a euh, fàgganiku def naa noonu lañ koy waxee ñun jàpp nañ ni en tout cas relation bi ñu am ak kilifa diine yi man relation ku may amal relation rek relation bu sincère lay doon man du ma ci li may def te bëgg nguur du tax ma dem di di wax lu dul dëgg wala di mel di di jël ay melokaan yu bokkul ak man parce que rek ba bëgg nguur man koo mun ci doon ak sa daraja ni mu toll su may jëflanteeg yow relation dëgg la te lu ma la wax rek xamal looloo nekk ci man relation boobu laa am ak kilifa diine yi te ñi ma ci gën a amal relation nag du ma fi tudd tur waaye nit ñi xam nañ leen yàlla xam na ni doom lañ ma def defuñu ma sax taalibe wala doom lañ ma def te relation boobu laa am ak ñoom di ñaan yàlla yàlla bàyyi lu ñu leen fi lu yàgg-yàgg di ñaan yàlla yàlla yokk leen wér gu yaram di ñaan yàlla yàlla yokk leen leer ak gis-gis ak xam-xam te di wax tamit ni ñun defuñu xàjj ak seen ci ci kilifa diine yi defuñu xaj ak seen kilifa diine kilifa diine la kilifa diine yépp a baax bu dee dëppoo nañu ak li ñu woote mooy dañuy defar nit ku defar nit nag yaa ngi defar société ku defar société président de la république na njëkk a jàppale parce que moom moo sa soxla war wéeru wara sukkandiku ci ay nit yoo xam ne nitu qualité lañu kon ñun defuñu ci xaj ak seen te ñépp lañu ubbil suñu bopp di ñaan ñëpp ñu ubbi ñu seen bopp parce que ndawum réew mi lañu keneen ak keneen ak keneen ak ñun benn lañu suñ ni ñuy dalalee keneen lañu mën a dalale ni ñuy recevoir keneen lañu war a mën a recevoir ñu toog waxtaan ñu wax leen lan mooy suñu mbébét ci réew mi loolu rek la ñuy demandé ci kilifa diine yi leen wax nag ni ñun seen ndongo rek lañu seen taalibe lañ seen doom lañu saa su ñu yëkkatee seen téléphone wax ñu. wala ñu ñaan ñu nañ def li ñu li ñu sant te barki dem bi li amee bi ñu yónnee ci ñun it dañoo teggi lépp daal di jël mbir yi jébbal leen ko ko loolu lañu gis ñun ni moo war a doon relation diggante diine gi kilifa diine yi ak euh, ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci géewu politique bi la ca des nag di leen wax nii mbir mi jeexagul parce que sëñ Muntaxa yal na fi yàgg te ànd ak wér. Eh, yàlla na ko yàlla may mu mottalit ay nalam rawatina la loolu lu am solo loolu di université Touba bi keroog bi mu yebalee ay nit yebal ku mat ndaw na sëñ Bass Porokhane ku mat ndaw ku mat ndaw à tout point de vue man de boobu laa koy doog gis mais bi ma ko nee jàkk dama xam ni kii ku mat a wóolu la ci bépp fànn bi mu waxee dañ ko ne nangul nañ la waaye wax ji moo am solo dafa ne sëñ bi nee na bu ñaari nit tongoo di dóorante xeex bi métti boo bëggee atte doo jàpp loxo kenn bàyyi keneen ki continuer di dóor dangay jàpp seen loxo ñoom ñaar ñëpp ñun nag boobu ba léegi ñu ngi ne tekk toog waaye gis nañu ñoom ci xaste ci saaga ci tëkkuwaate la ñu nekk boobu ba léegi ñu koy gaaral kilifa yi rek te yemale mbir mi foofu